ko defee mu réussir mu ni ma man nga ko continuer ko bon cangé j'ai yàlla def na ci jàmm te euh, ni ma ko continuer ci rajo bi aussi noonu aussi laa continuer ci ci quotidien bi avec les Abdourahmane Camara et autres ba yàlla def j'ai fait huit ans à Walfadjri ba yàlla def aussi à partir de Walfadjri RTS aussi mën naax am bi ñëw dañu gis si man xëy na engagement boobu ak volonté boobu moo tax aussi bi ma ñëwee fii j'ai pas eu de problème fekk na wax dëgg yàlla aussi euh, comme li nga wax rek sànq ne Walfadjri école la xëy na bi ma ñëwee fekk na waaw moo tax man pour ñëw ci sa question boobu ne li nga wax ni Walfadjri école effectivement école parce que bi may ñëw fii déjà man euh, RTS gi su ñu nee Mama Moussa Niang ñëw na RTS rek déjà ku ko dajale ah bon waaye Mama Moussa Niang ça dire que déjà Walf avait fait. un clic important si ci sama tur Walf m'avait déjà lancé baal ma de maa ngi waxaat wolof <laughs> Walf defoon na ci man euh, tur bi déjà et que peut-être li desoon mooy ma ñëw fii aussi eggale fi beneen liggéey fii nag beneen liggéey la moom ak Walfadjri xëy na am na tuuti différence ndax fii li mu gën a jege mooy euh, état bi ak gouvernement bi ak public bi mais mën naa wax daal wal la Walfadjri moom waxuma la école mais école bu mag la ah parce que dina la may fit hmm? dina la may jom waaye itam dina la euh, dina dina dina la may passion maanaam bëgg-bëgg ak gëm liggéey bi. fit tamit boo ko amulee ci liggéey bu mel nii doo doo doo doo sore waaye beneen affaire tamit la ko am mooy may mooy crédibilité parce que tamit gëm naa ne man bi ma nekkee war euh, war fajari Saint-Louis di fa liggéey am na nu mu doon demee waxum dina tabax ay étage jënd ay oto takk ay soxna waaye sama crédibilité ak turu Walfadjri boo doon wuyoo moo taxoon xëy na nit mënuma euh, ger comme li ñuy wax mënuma jaar si fenn foo xam ne dina ma dina ma yab xëy na nag aw ma alal bari ma mais ba tey sama dingité ak sama crédibilité boobu gis naa ne ah nit parvenirul ba léegi ba ba ba mën koo euh, jënd wala weccee ko ak sama liggéey loolu aussi am na ci solo. en 2000 2001 bi Ablaye Wade doog a ñëw am benn période boo xam ne dañuy ne woon waa yëpp nañ génn Mauritanie y avait deux jours à trois man dama waroon dugg Mauritanie bi may dem Mauritanie maa ngi day ak Sénégalais ay bus ay camion ay car ay njëgaj seen matelas magnétophone yëpp ñu koy delloo di ñëw di ñibbisi bi dem Mauritanie ma def naa trois jours roosu Sénégal pour mën a jéggi chaque fois bu ma demee ñu ne kii warul jàll journaliste wal fajari la ba benn fajar ma xëy dugg ci gaalu looco gaalu looco soo ko déggee mooy gaal yu ndaw yu tuuti yu gàtt yi ma dugg ci ñooyu nappkat yi jaaykat yi ñoom ñoo koy utiliser ñoo ci duggee ci laa fexe ba jéegi dugg rooso bi ma duggee Rosso il fallait aussi ma dem Nouakchott bi may dem Nouakchott presque am na dix check point check point yëpp laa romb parce que check point yëpp boo egsi dañu naan est-ce que oto bi amul Sénégalais doomu Sénégal bu ci nekkee ma la wàccee la waaye prison ma nga jëm directement ma dugg ci oto bi noonu laay demee di dem di dem ba dugg Nouakchott j'ai fait presque une semaine à su ma duggee ci cabine téléphonique bi envoyé wal Walfadjri changé parce que xam nga Mauritanie c'est un c'est un c'est un pays de militaire téléphone yi nekkul ci biir cabine téléphone presque ci digg cour la nekk amul dugg ci biir cabine nii da ngay taxaw ci digg néeg bi nii salle bi nii téléphone yëpp léeg léegi su ma envoyé foofu pare damay génn foofu dawaat feneen <laughs> envoyé waat feneen. loolu laa ko jàpp presque ba semaine bi ñu jeex te ñoom ils écoutaient Walfadjri mais mënuñu woon xam kii envoyé sur Walfadjri kan la boobu à l'époque Walfadjri même était interdit en Mauritanie parce que Walf Quotidien moom ci la waxoon ne diggante Ablaye Wade ak président bu wu ñu ils se sont engueulés même au téléphone ba ñu interdire foofu kii ba journal ba moo tax mënuñu woon dégg turu Walfadjri li yàlla def. ba ma amee problème pour génnaat rek entre temps président Mourtani ne juboo am na waa Sénégal mën nañ dellusiwaat loolu moom moom mayaat sens ba ma génn génnaat Mourtani ba mën a ñëwaat dugg Sénégal. Walfadjri, un plaisir qui dure, une radio qui assure. ar bu neex boo xam ne jafe na ma ma fàtte ko parce que bon bi ñuy bi may démarrer Walf boobu man dama nekkoon euh, étudiante nekk CESTI di def deuxième année donc man dama ñëw euh, Walf am confiance si man bon ñu permettre ma voilà ma mën a mettre en pratique li may jàng si avant même may génn école euh, donc déjà man bi may def deuxième année dama ñëw rek ñu dugal ma ci ni ñu koy waxee ci français ci cours des grands parce que boobu maa ngi fa fekkoon ñoo xam ni ñu bëri euh, ñoo xam ne sax après soir ñi ngi dajewaat fii RTS wala ñi ngi feneen donc euh, ak euh, ñu ñu permettre ma ma commencé di lépp lu ma jàng sisti rek des fois sax danaa def loo xam ne jàngaguma ko dina ma commencé def ay reportage commencé def ay interview commencé def aussi ay présentation parce que week-end yi man maa ngi rappelé bu baax brève yi ma daan présenté euh, soit c'est la nuit guddi gi lay doon mu nekk vendredi samedi dimanche wala brève diggu cëg bi su ma ko defee ba quinze h jot ma enchaîner dem stade donc dañ doon allier parfaitement déjà en deuxième année rek nga mën boole euh, présentation ak reportage sur le terrain ñun loolu rek la ñuy demander on demander que ça bu ñu boo nekkee c'est si loolu pour gën a mën a mettre en pratique li nga fay jàng moo tax fu bokk na li marqué sama carrière te ba léegi sax daf may def reetaan euh, pas plus tard que voilà il y a il y a juste deux semaines yàggul dara maa ngi daje ak nit mu naan ma j'étais sur le terrain may def reportage groupe bu taximan la ñi ñu toog mu ni ma ah mu ni ma Kumba Jaxate maar fu ma ni ko waaw <laughs> mais léegi RTS laa nekk te loolu chaque fois day siwaat ci man fu ma tourné rek soit bu ma nekkee ci corniche bi di def sport wala fu may génn rek wala may dox nekk ci marché bi fu ma nekk rek il faut que bu ma ñaari nit tuddee ñetteel bi dina ma ni ah Kumba Jaxate Maaru Walf ma ni waaw moom la mais léegi maa ngi RTS donc pour te dire que Walf dafa joué bu baax a baax ci sama carrière mu nekk loo xam ne mënuma ko fàtte euh, voilà su may wax ak Walf ci wax Walf daal c'est avec beaucoup de plaisir mbégte rek laay am di si wax. Walf école la parce que bu fekkoon da ngay dem CESTI rek. génn ñëw toog bon CESTI ci boppam dañ lay envoyé en au niveau des rédactions parce que xam nañu solo nga nekk di jàng nekk rédaction parce que jàng bi rek théorie rek la lu ñuy bind rek la bokkul ak li nga xam ni mooy pratique loo xam ni mun nga ko gis ni mun nga ko jàpp li nga jàng nga ñëw mettre ko en pratique te Walf man personnellement daf ma ko permettre ak ñeneen ak ñeneen parce que ñun génération euh, yu nekkoon comme on on nous appelait les sistiens dañ fa bari woon ak yeneen écoles yi euh, donc Walf dafa dafa nekk école parce que man fa nekk avant may génn sisti ba ma génn ba ma après ma génn ba deux ans après je crois euh, donc lu bëri lu ma mën euh, foofu laa ko mëne euh, dafa nekk loo xam ne daal dafa marqué sama carrière journaliste te regretté wu ma ko. anecdote bon <laughs> xanaa xanaa bi ma la wax sànq ci nasaraan parce que man bi may ñëw fu nekk deuxième année CST boobu dafa nekk maa ngi nekk jigéen bu wérul ma toll si ñaari weer mais ñoom xamuñu woon daal mais bi ma ñëwee ma def fa trois mois ou deux mois après bon fekk amoon naa fa benn cachet bu tolloo ak li ma fa doon def en tant que stagiaire warul sax donc bi ma fa defee deux trois mois Aliou Ndiaye boobu temps ñoom ñoo nekkoon responsable rédaction bi moom ak mu Ndir Aliou maa appelé mu ni ma ah Kumba après nga jaar sama bureau ma ñëw mu teg ay géej yu bari ni ma da ngay liir nga signé ma liir gis ni dañu bëgg améliorer sama cachet <laughs> est-ce que man dinaa mën a assumer lii mu ni ma noo xam nañ ni yow liggéeykat nga ñafekat nga gis nañ li koy ma ni ko ah si lawin moom gisul mu ni ma noo gis na la ba y rek euh, signal yow nga xam nañ di nga ko liggéey donc loolu dafa nekk lu ma marqué mu nekk aussi lu neex parce que dañ ma jox confiance euh, te loolu dafay wane que ni am na bari na boîte yoo xam ni Sénégal Walf en tout cas bokk na si que voilà que jigéen mun na boole sëy ak jàng waaw donc ba ma signé loolu euh, après voilà bi ma accouché liggéeyee nag dama rus parce que dama ni man il faut que ma liggéey jusqu'au bout loolu moom ma motivé woon ma doon liggéey liggéey bu bëri ba bi wutum jéemuma sax wax waxu congé maternité dama leen nëbb yëpp <laughs> ma toog dama liggéey ba à deux semaines nag mon accouchement la arrêté voilà ma accouché lante ba ngénte bi rek ma liggéey si si di Lamine dajante ak man ci escalier yi ne ma i yow loo fiy def ma ni ko boo mu ni ma non non non accouchement ni mu métti ak ki demal nga jël temps bu la neex ba mu neex la nga doog a ñëwaat donc yooyu xam nga ça fait plaisir te loolu xëy na sax tey bokk na ci lu ma gën a gën a kiyal te itam ñi ma nekkaloon ñëpp ma comprendre loon ah ñoom ñoom ñoom ñoom Pam Ngañ Njaay Pam Ngañ daf ma daan tooñ sax naan ma waaye yow madame Mar fi ngay dem di tourner reportage xanaa gis est-ce di nga fi gis ñu mel ni yow <laughs> <laughs> pour dire voilà donc belle ambiance moo fa doon am ak ñoom su fi awa dekkoon bokk na si aussi li may fàttaliku euh, ngoon si bu ñu liggéeyoon ba pare après journalu français ak wolof bi xam nga diggante di heures 18 heures ak timis foofu da ngay xiif dañuy génn man Sophie Ousmane ñu dem nekk si biti di wuti ji soit ay beñe ay laxas <laughs> xam ndax en face noonu fronté am na lu ma fàtte wax ci français bi rek ngeen baal ma mooy li neen li ma gën a marqué ci ci Walf mooy bi ñu démarré télé bi parce que ñun on était à sacre cœur ci rajo bi télé bi bi mu démarré ñu indi ko front de terre donc ñun dañ doon def suñu suñuy édition journal ci rajo bi suñu paree enchaîner rapidement ñëw front de terre en moins d'une pour ñoo présenter le journal loolu ñi seetaan début télé bi mënuñu ko sax imaginer loolu lañ daan def te dañ ko doon def dans une belle ambiance loolu aussi bokk na ci li ma gën a marqué pour te dire que jàmm rek si la lépp xaj dañu déggoo woon bëggoon li ñuy def aussi voilà et puis ñu bàyyi ñu ñu am suñu liberté d'expression. Walfadjri, un plaisir qui dure, une radio qui assure. mais moom euh, jàngal na ma ma wàññi sama xadara ma wàññi aussi yu bari daal ndaxte xamal na ma tamit jigéen déjà ni nga war a mel ni nga war a taxawaay bi nga war a am euh, même ci diina aussi bien que nag moo <laughs> lu ma ci respecter mooy loolu mais ci diina aussi il a beaucoup fait ndax euh, dëgg-dëgg ki la ki la ki la yóbbu màkk ak ki la yemale ki la ki la njëkk jox salaire kooku loolu yëpp nag Sidy Lamine Niass nekk na ko ci man tax na ba euh, sama papa la doon sama papa la doon ci lu ne ndaxte euh, Walfadjri euh, fa laa dooree en 2001 donc boobu maa ngi woon première anesthésie nekk woon sax ay stage d' école j'avais na n'avais même pas le droit ndax ceci deuxième année ngay commencé def ay stage d'immersion mais man en première année ma jaar si Adama Kandé fekk boobu Walf moo doon bomb et comme man je suis quelqu'un d'extrêmement ambitieux ndax dama jàpp ne man ci lépp lu ma nekk rek damaa war a bokk ci ñiy toog di di di di jiite te ci ci lu may bokk tamit du dokk ci duma bokk ci yu ndaw foofu bëri woon na ay rajo jamono yooyu euh, mais wal Walfadjri comme moo doon bu gën a fës bi man foofu laa ne woon fii laay dugg euh, donc ma ñëw Adama Kandé moom ma yóbbu sama demande de stage Souleymane Niang moo doon directeur bi à l'époque et ma ñëwee donc euh, voilà yàlla def ma dugg ba ma fa duggee nag ba ni ma fa génnee euh, dëgg-dëgg rëccuwuma ci benn yoon au contraire te façonne na ma en tant que nit d'abord en tant que jigéen mais en tant que tamit xaleel boo xam ne da nekk ci entreprise nga ñaan nag di évoluer donc loolu yëpp def na ko Walfadjri nekk na ko ci man li gën a am solo nag mooy ci liggéey bi ñuy def nga xam ne euh, nga fës dafa am solo. Euh, Sidi aussi bien ni mu demee ba xalaat ne ni mu combiné rajo bi ak télé bi doxul. bu ni à l'époque phase test la woon léegi dem na ba nga xam ne ni yëf yi xam na ne ça n'a pas pris mu ni kon damay changer naka noonu la war defee nag ba ne nag fi mu ne nii euh, sama résolution 2016 mooy. képp koo xam ne nii Walfadjri ngay yeewoo boo ñëwee foofu ma nga toog dootuma man man sii di dootuma jëlati ay nit di leen former pour nag léegi pour pour Youssou Ndour doo former te kenn pour Youssou Ndour Youssou Ndour su bëggee ñu ñu mu former mais na école jël leen former leen mais c'est ça qu'il doit c'est comme ça qu'il doit réfléchir quoi mais man je comprends pas pourquoi sii di Euh, jusqu'à maintenant euh, je veux dire euh, euh, euh, il n'a pas ce sursaut quoi donc mënul continuer naan Walfadjri formation école la loolu c'est dépassé ñi mu war a jël ñi mu jël na xool si ñoom ñoo xam ne ñii bien nañu mu téye leen pour Walfadjri continuer di law mais Walfadjri bu bëggee nekk kon tout le temps dans un processus de recommencement dans un ci benn régénération mais kooku euh, sa pète les gueules wala ñeneen dépassé comme comme c'est le cas maintenant Walfadjri fi ñu toll nii il faut oser le dire et moi ça ne fait pas plaisir wax naa ne man maa ngi tey FM euh, je n'ai pas peur de dire que <laughs> wax dëgg yàlla su ma xëyee suba man man Walfadjri laa seetaan du matin au soir je regarde Walfadjri euh, TFM sama sama journal bi comme c'est moi qui euh, qui qui dirige le JT donc je regarde le JT je suis de regarder le JT parce que il faut ma xam quand même li ñu li ma liggéey ak sama sama sama sama gars yi li ñuy def mais sinon Walfadjri mën naa la wax yéen ñu en tout cas ñuy génn antenne mën naa la ku ne kii la kii mooy kii wala kii mooy wala ñu may dégg sa naa di nangam je ne regarde que parce que sama ADN la nekk foofu laa jógee moom Walfadjri laa sama lépp foofu laa ko defee donc ñun ñi muy man di même li nekk ci man wóor na woon maa du rakan laaj ko loolu lay wax ñun ñëpp Walfadjri ñun ñëpp on a une part de Walfadjri en nous. Walfadjri un plaisir qui dure une radio qui assure.